jàngeen jëf mbokk yi asalaamaaleykum jaajëfal nañ leen bu baax a baax ci ànd geeg bàyyi xel geeg GCB e dellusiwaat na wala boog dellusiwaat nañu ci ni nga xam noonu lañ koy àndee ak yéen ci yi nga xam ni souvent dañ koy faral di ànd ak yéen tey nag dañu déplacé wu euh, ak ki nga xam ni sénégalais yi xàmme nañ ko wala ràññee nañ ko ci euh, réseaux sociaux yi en même temps ci télévision yi ak rajo yi Oustaz Sanit Diallo depuis 2013 14 15 16 defe naa lépp ñoo ko bokkoon nekk fële ca euh, rajo Sopi FM daan def émission yu am solo yooyu le tey nag moom la ñu laat fii ci GCB comme niñ koy amalee souvent. fàttali ni moom mooy borom euh, Mouslih TV ak mouslih point comme en même temps yéen a koy seen ci wal fajiri ci émission bu mag boobu la di yor yor ak moom ak Cissé Thiaba ak ñoom Baara Dieng ak Mass Mboup tey nag ñu bëgg a waxtaanee mbokk yi ñaari point benn bi lenn ci suñuy abonné ak lenn ci suñu ay xarit yàgg nañ ñu ko yónnee muy video boo xam ne Oustaz Mor Thiam bu nekkoon fële ca euh, rajo RFM moo ko def dinañ ci ñëw incha allah beneen bi ci des mooy dañu gisaat beneen vidéo bu Moustapha Diakhaté mu jël ay wax yu ñàkk teggin wax yu xamadi wax yu doy waar yu mu teg ci sang bi alayhi salaatu wasalaam ak ci ay waajuram dinañ ci ñëw waxtaan ci dalal ci ki nga xam ne mooy Oustaz Saïd Diallo l'homme de tout terrain Oustaz Saïd Diallo la philosophe nuyool ak internet yi euh, salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu fu ngeen nekk ci àdduna bi di topp GCB ñu ngi leen di jaanal jàmbi yàlla mhm. ak yërmandeem ak barkeem yàlla defal leen ko defal ko mboolem jullit mhm. sooy bu di la jaajëfal bu baax ci liggéey bu am solo bi di la encouragé te ñaan yàlla sunu borom subhaanahu wa taala mu mottali projet yi ndax xew-xewu jamono mhm. tolluwaayu réew mi saa su ne rek yaa ngi kiy bay sa ñi mhm. ñu ñaan borom bi nga xam ne mooy mottali yàlla yàlla li amin ñu bokk ayca mi ngi noonu ci nuyoo bu am solo bi gis nga ko moom suñu seexandoo la moom ak ñu ngi nuyuwaale suñu xarit ba Serif wala bokk Serif seexal di seex ba Grand Dakar ak suñu maître suñu idole Alaaji Fàllu euh, Cissé ñaanal Fàllu Alaaji Fàllu Sène ñaanal Fàllu dugg ci waxtaan wi nag ma fàttali mbokk yi ni euh, Serigne Abdoul Aziz Diaw ñu gunge ci jotaay bi souvent muy koo xam ni nitu yàlla la di borom xam-xam sénégalais yi ràññee ngeen ko ci li nga xam ne moom lay liggéeyal di ci sédd boromam wax naa leen ko ni leen li da ciy sédd boromam ci anam yu nekk ci wàllu sellal liggéey bi ak bàyyi ci xel boromam ay numéro mi ngi doon di affiché ci baaru écran bi lépp loo xam dafa jëm ci fajum plante rek doxantu leen foofule yéen ñi nga xam ne seen kër dafa yëngu ci wàll yu baree baree bari dem leen ngeen euh, ma soo ay bu rus naa xamanteeg nit muy seeti Serigne Abdoul Aziz Diaw ay numéro mi ngi noonu euh, bala ñoo def dara wala boog sax dañ koy mujjee mm-hmm. Oustaz Mor Thiam ñu def benn leeral bi bi mu defee benn atte ci benn masala bu ñu ko joxoon dinañ la jox masala bi nga leeral ko sénégalais yi parce que dafa am sénégalais yoo xam ne déglu nañ waxu Mor Thiam ba am na nuñ ko déggee donte ne ci rajo bu mag la ko defee muy RFM ñun woo nañ ko waxtaan ak moom bëggoon ko déglu ci suñu antenne mu ni d'accord bañul pour ñëw leeral bañul pour ñëw wax ak sénégalais yi ni moom moo juum ni kuy jàngale da nga juum ndaanaan day daanu ku mag day daanu borom xam-xam day daanu noonu la nangoo ni dafa daanu jéggulu na boromam mi nga xam ne jàpp nañu moom la tooñ dinañ ci ñëw ak oustaz ndax boromam la tooñ ndax sénégalais la tooñ ndax ndax ndax ak lan mooy responsabilité nga toog ci rajo wala télé jàngale masala leerul est ce que da nga war a ñëwaat dellu si wax ak sénégalais yi wala ndax da toog war a toog rek jéggulu sa borom donte ne ñu ngi koy nangul li mu def parce que ku modesti rek moo mën a juum ci digganteem ak boromam dellu si waat kon nag Mor Thiam ñi ngi la koy nangul di Oustaz Saïd euh, jox naa la son bi déglu nga ko Oustaz Mor Thiam nee na xale bi nga xam ni dañ ko maye à l'âge de 13 ans wala boog dafa am 13 ans 14 ans ñu ëmbal ko mu dem ba bakkanam nekk ci xottu gerte ndax du am rapport ndax amul jëkkër ñu laaj ko ni ko médecin bi nee na faw xale bi di def rapport sinon mën na ñàkk bakkanam Oustaz Mor Thiam ni waaw mën na def rapport bu fekkee docteur bu ragal yàlla moom moo wax loolu le nga ñëwul ñu ci masala boobu ak ak gisee li nga xam ne mooy waxi Mor Thiam jooju. waaw euh, xanaa di ko jaajëfal. Mhm. nangu gi nga xam ne nangu na ko ne dafa juum mhm. loolu dañ ko ciy jaajëfal mhm. waaye ci beneen fan fànn duñu ànd ak moom mhm. ndax bu fekkee ne da nga dugg ci ruq juum boo neexee nga ne kat damaa juum ci ruq mais bu fekkee da nga génn ci plateau boo xam ne adduna bi yëpp dañ lay seetaan wala li ëpp ci doomu aadama dañ lay seetaan te boo defee sa fatwa ne lii araam na wala lii dagan na ay million de personnes mun nañu jëfee loolu ba xëy dugg ci biir bàmmeel ëllëg yowmal xiyam yàlla ne leen fu ngeen jëlee woon lii mhm. ñu ne oustaz Mor Thiam kat moom mooy ki nga xam ne moo defoon fatwa bu ñu mel mhm. kon da war a dellu fa nga juumee mhm. nga wax ne kat ci plateau bi bés sàngam ci waxtu sàngam laajoon nañ ma ci masala sàngam ma def ci njuumte loolu mooy li nga xam ne mooy adalatul ilmi mooy mandute borom xam-xam léegi nag bu fekkee ne masala bi ñëw na waaw mooy koo xam ne yàlla dogal na mu mu mu. ëmb te amul jëkkër mu ëmb te amul jëkkër. Mm-hmm. léegi li ñu waroon njëkk laaj mooy lan mooy seen àtte ñoom ñaar. exactement maanaam ki ko ëmbal ak ki ëmb. voilà mm-hmm. loolu moo waroon nekk seen àtte. Mm-hmm. kii ëmb na lu tax mu ëmb. mayewuñ ko ëmb na. kon dafa woyof sër. lan moo tax mu ëmb dañ ko siif wala dañ ko kii charia loolu lay àtte ba pare balaa muy àtte li ci biir ba. est-ce que kooku ñuy wax ni moo ko ëmbal moo ko ëmbal. ndax charia bu dee loolu charia du d'accord ci loolu. Ah. waaw. ah bon déedéet kon benn soxna bu ñëwee nii rek soo ay boobu ma ëmbal charia du d'accord ci loolu day taxaw seetlu bu ko ngéntee jox ko turam tam charia dakkaru ko d'accord ndax hors mariage la ndax mhm. lislaam moom li muy wax mooy mhm. alxayri fi mu judd fu mu juddoo mhm. ba nit ki di génn ci biir bàmmeel ndax al waladu lil firaash ñu ne doom mooy ki nga xam ne may nañ la ko bu muy fanaan sa gannaaw lépp lu fa juddoo yow sa doom la pour ma gën la ko leeral mooy nit bu fi bàyyee soxnaam dem Italie soxna si euh, ëmb ci ginnaawam judd euh, doom juddu ci moom lañ koy delloo. Mhm. ndax ci buum sëyam. Mhm. la nekk. Mhm. képp ku fa ji ci toolu jàmbur nga ji. d'accord kon loolu mooy. Ah, sew sew boo xam ne. dañ uh-huh. ko wax. Uh-huh. beneen bi mooy. bu fekkee nit ki ëmbal nañ ko. waxuñu charia ci li nga xam ne moom mooy ay mbiram. ne lu tax mu ëmb ak yooyu. ba dugg ci deuxième phase bi man léegi damay wax ne boo jëlu première phase bu laal deuxième phase. waaw boo laalu première phase. bu laal deuxième phase. d'accord léegi ki nga xam ne ëmb na. ñu ne léegi. lijjantiwuñu première phase bi waaye deuxième phase bi la ñuy xool médecin bu am ragal yàlla est-ce que ragal yàlla dina wax doomu aadama demal nga njaaloo waaw dëgg-dëgg déedéet dañuy wax ne bu fekkee médecin bi am na éthique et déonto éthique ak déontologie la ñuy wax mais waruñu wax ragal yàlla d'accord ndax ragal yàlla du du xiirtal jullit bi nga xam ne mhm. njaaloo dafa xaraam ci moom mhm. mu naan ko demal nga njaaloo ngir faj wala demal nga njaaloo ngir muccal sa bakkan kooku charia da koy bañ kon charia du la may nga njaaloo pour faju déedéet d'accord ndax yàlla deful ci loo xam ne dafa xaraam mhm. njëriñ ci ñun lu mel ni sàngara mhm. lu mel ni njaaloo mhm. lu mel ni loolu amul lenn loo xam ne yàlla araamal na ko nag lu ne ñun daf ñuy indil ngànte daf ñuy indil yàqu jikko daf ñuy indil société boo xam ne nii kenn day pëccëxoo ba kenn du xam kan mooy kan ak lan mooy lan am na solo léegi nag njaaloo boobu nga xam ne am na bu fekkoon ne xale bu jigéen bi dafa nekk ci danger ak ëmbam charia buy ñëw day xool yaay yi lay sauver bàyyi doom ji mu dee ah, d'accord kooku sew-sew la d'accord yaay ji la ñuy sauver bu fekkee ne xale bi kat war na judd mhm. te pour mu juddu mhm. il faut xale bi wala yaay ji kenn dem ci charia mhm. ki nga xam ne bakkanam mi ngi fi ba pare moom lay njëkk a jéem a sauver ka nga xam ne bakkanam ñëwagul ñëwagul d'accord d' accord waaw kon masala sew sew la la quoi d' kon xale bu jigéen bi nga xam daal nee nañu bakkanam dafa nekk ci xottu gerte ngir dafa war a sëy kooku lu nan la sariya di def il faut mu sëy sinon mu ñàkk bakkanam kooku warul laaj sax sariya warul laaj warul laaj sariya sariya la waaw dëgg naa la parce que sànq nee nga woon dafa am fu ñu waroon a commencé waaw ay ca mi ngi noonu kon jaajëfal nañ ko baax moom Oustaz Saint Diallo ci tontu yi nga xam ne amal na ko ci li nga xam ne mooy Oustaz Mor Thiam li nga xam ni euh, moom la wax jaajëfal ko nag ci euh, modestie mu am pour taxaw jéggalu boromam waaye li Oustaz wax mat na bàyyi xel mu na dem fam ko waxee woon itamit parce que ñi ko déggoon foofu waaw ba continuer di dund loolu mhm. gis seen doom lu mel noonu daal ko dañ koy yebal ca ka nga xam ne moo ko ëmbal sax ah. waa ji sax mën naa jël vidéo bi yónnee ko xale bi waaw ko kaay ma lay tëddee parce que nee nañ sariya nangu na ko bu fekkee ni sa bakkan mën na cee des voilà bu doon mbir boo xam ne dañuy ubbi mhm. li nga xam ne mooy débauche sër yi dañuy gën a woyof waaw dëgg la tubéy yi dañuy gën a woyof dëgg la ndax foo ku amul dara nga may ko yoon mm. <laughs> day pataxlu ay ca mi ngi noonu mbokk yi loolu mooy première partie bi deuxième partie bi nag dañuy dem euh, seetaan li nga xam ni dégloondoo vidéo bi nga xam ni Moustapha Diakhaté moom moo ko wax muy wax ju ñàkk teggin wax ju ñaaw wax joo xam ni bu ñu demee ba ñëw dinañ xool lan moo ci responsabilité bu borom xam-xam yi fi nekk ak moom Moustapha Diakhaté ban bët la ko diine di xoolee ñu dem déglu ji waxam ji tuddeel siwaat façon moom mënut am dëgg ci am dégg sax benn bis xale bu jigéen boo xam ne xamuñu ndeyam xamuñu baayam. Euh, wërës bu ko déglu jugement ma yonent bi sallallahu alayhi kan moo xam ndeyam ak baayam. kan moo xam ndeyam ak baayam ñun suñu yoon daane ci ndey baayam ak ak ndey ak baay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam parce que maa dégg benn nit bu may wax ak moom benn mu ma yonent bi moo nu gën ndey ak baay ma bi ah. parce que man sama ndey ak sama baay ci l'islam lañ judd ndeyam ak baayam judd wuñ deewuñ ci l'islam hmm. c'est Sénégal ñoo ñoo maanaam ñu c'est grave comment un imam peut traiter de ce point nit nit hmm. xale bu jigéen bu ñu xamul ndeyam ak baayam hmm. c'est Sénégal moom dañoo yaakaar ni jigéen moom tëddoo ko rek ak liggéey la ko la ci kër. Mhm. bañ nañ ko sax bu ñuy tagg jigéen lañ koy taggee mooy nangu mu nangul jëkkëram. voilà mooy lay wi ñuy wut naan way liggéeyam day añub doom ba ba ko càq. Oustaz Sangid ñoo bokk seetaanandoo wax ji mu ñaaw salte bon xasaw ñàkk xamadi waaye ñàkk yar nekkit ci réew moo xam ne damay gëm ni lii mu wax tey bu ko waxoon kenn ci maam yi kenn ci tarixa yi ni ci réew mi. balaa état bu Sénégal di réagir fekk dañ naan ana néew bi fan lañ koy denc ni ma xamee ni réew mi doxee léegi d'abord bala ñoo ñëw ci question yi nan nga ba nga déggee waxtaan wax waxu Moustapha Diakhaté bi lan la def ci yow. sama fit moo ne rës. Mhm. sama naw gi aju. Mhm. ma yaakaar ne man damaa faatu sax. Mhm. ndax choc la ma def choc. ci kaddu yu ñàkk a teggin ñàkk a worma ba pare di génnee doomu aadama ci lislaam wallaay wallaay rasulillahi yonente bi alayhi salaatu wassalaam dañuy wax ne muhammadun min nasli hasimin mm-hmm. fa naqluhu min tahirina wa tahirat mm-hmm. hatantaha li tahirina wa tahirat mm-hmm. yonent bi alayhi salaatu wasalaam soo ko jëlee ci abdullah ba ca maam la nga xamante ni mooy adnaan amul kenn koo xam ne mun nañ ko jam baaraamu tuuma ci benn côté du ci jikko du ci pas-pas du ci jëflante ba ci adnaan ba ci adnaan yonent bi alayhi salaatu boobu moom Moustapha moom mi di wax. Mhm. bu dul woon yonent bi doomu njaaloo lay doon. wallaahi waxaat ko kenn du xam bu dul woon ak yonent bi. doomu njaaloo lay doon. Mhm. kenn du xam baayam. Mhm. yonent bi moo ñu ñëw alxuraan jàngal ko. ne ñu fankihu ma taaba ko min a nisaa yi. wallaahi jël leen ci soxna yi bu ngeen leen di jël ngeen bàyyi fa can. kan moo tax baayam jël ndeyam. di tëjoog moom kenn tijjiwu leen dóori leen ay yat mm-hmm. yonent bi alayhi salaatu wasalaam wallahi wallahi mm-hmm. koo fi naw ku mu mën a doon mm-hmm. bu néewalee rasulillahi ñu néewal ko wallahi ku ku ñu fi màggal rasulillahi la màggal moo tax ñu màggal ko bés bu ñu demee ba gis ne moom toppatul yoon bi alayhi salaatu wasalaam jëloon ñu ñaanal ko yàlla waaye duñ ko topp dëgg la xam nga yonent bi alayhi salaatu wasalaam yàlla nee na boo ne ko hee yow Muhammad nee na day mab say jëf est-ce que boo ne ko xee nga sàllalu ko mm-hmm. bi de wax sa kaddu di gën a kawee kaddoom mm-hmm. mais Moustapha Diakhaté mm-hmm. laa tarfaw aswaatakum fawqa sawti nabi wallahi wallahi rasulillahi kenn du ko sàllalu ba ngay dem nag di joxoñ aminatu waaw di joxoñ abdallah xamuñu ndayam xamuñu kan mooy kan mooy kan mooy ndayam xamuñu ndayam ah moom mooy kan ndayam gënul sama nday xam nga dafa dee ci deewul ci jullit te sama nday ci ci jullit la dund yow loo jaamu yàlla yonent bi am ko mhm. wallahi alazim mhm. te bu dul woon rasulillahi sallallahu alayhi wa mhm. doo dund yow yow doo dund dëgg la léegi nag kaddu gi nga wax génne na la ci lislaam te bu fi àtte charia amoon dañ koy fekk fu mu toog ne ko li nga wax lan nga ci jublu su ko delloowaatee ñu ne ko tuubal bu bañee dañuy dagg boppam Hmm? ndax génn na ci lislaam waaw daf mel amoon na ci ay jamono sax ci yonent bi ñu ko daan ñàkki teggin am na ku ko doon jëf jëf ju mel nii dañ ku ko gis deretal maanaam euh, lislaam euh, euh, sarax na deretam waaw kaab fuñ ko gis na nañ tuur deretam kaab la mhm. mu yëkkati kàddu gu ñàkk teggin yóbbu ko ci rasulullahi bi mu xamee na kat def na loo xam ne mhm. lal na laalaake mhm. addunaam ak alaxira nar na ci yàqoo dafa wëlbatiku ñëw di tàgg rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam kon Moustapha Jaxate wax ju bëri baaxut li ëpp ci doomu aadama yi foo toll di wax toll di wax toll di wax mhm. di nga wax njombe mhm. wala la wax ba làmm sa xob mhm. dompat ko defe ne bu keneen la rasulullahi day moroomu ahmadul xadim day moroom Seydi Aj Malik day moroomu Omar day moroomu Aboubacar du moroomu benn mbindéef ndax ñoom ñëpp mooy seen kilifa moom la yàlla jël subhaanallazi asra bi abdihi laylan min al masjid al xaraami ila al masjid al aqsa allazi baarak naa xawlahu li nuriyahu min ayaatihi ndeysaan yow uh-huh. yal na la yàlla may tub balaa ngaa dee d' accord léegi nag oustaz ci réew mu normal nii Moustapha wax jaxate wax waxam ji doy waar ji euh, léegi nag lan moo ciy responsabilité wu borom xam-xam yi lan moo ciy responsabilité wu état lan moo ci responsabilité waa réew mi ci xam ju mel nii ndax c' est pas la première fois muy am na Idrissa Seck waxoon na fi mel nii ci bàkk ak màkk ba tuddee fi yonent bi ab kaw-kaw mu fenn Moustapha Diakhaté waxaat na lii bari nañ bari nañu luy luñ koy dégg c'est pas la première fois ci Moustapha Diakhaté ba ci ay taalibe da ngay dégg taalibe yu wax lu ñàkk teggin yonent bi alayhi salaatu wasalaam lan lan moo ci responsabilité wu ñett ñi ma la tuddal xam nga dafa am ñoo xam ne seen yitte mooy lépp loo xam ne dafa sell ci lislaam ñu sell dil ko wala ñu tilimal ko mhm. boo demee ba bëgg a jàppee nitu diine kilifa diine nga ne ko mook nankatu sàngara ñoo yem mhm. loolu seen ay mbir la dem ba jël lii di julli mhm. ñu jël ko ne sport la mhm. dem ba fi nga xam ne fa la ñuy jublu muy makkatal mukaram ayna maa tuwallu fa sammu wajhu llah mhm. fépp fu ngeen mooy nekk bëgg julli jublu leen ci xibla googee mhm. muy makkatal mukarram nga dem naan ñu gars yi fi ñuy jublu est ce que am nañu am nañu am nañu julli mhm. est ce que foofu la ñu war a julli est que du Jérusalem la ñu war a julli kon kooku mi ngi mettre en cause alquran mi nga xam ne moom moo changé loo jullit ñi fi ñu doon jublu dafa leen fële mooy baytil baytillaahil haram kon programme la boo xam ne faramaçon yi dañ ciy liggéey mooy lu rafet Mhm. lépp lu taaru lépp lu sell ci l'islam mhm. ñoom dañuy fexe ñëw tilimal ko ba mu sell di mhm. ba kenn dootu ko jox valeur ngir ñoom li ñu bëgg ñu daal di koy def waaye képp kuy kilifa diine na xam ne boo toogee ci ci ci ci ci ci ab car nga gis sa date bi nga toog ñu koy gor xamal ne am nga problème yaa ngi ci suuf yaa ngi ci suuf ndax bu fekkee da ne damay def ni sël la ba defoon ñetti nag ya nag ya waaw bu ñu bëggee rey ñett yëpp dañuy commencé par benn mhm. bi ñu laalee bu weex bi mhm. bu ñuul bi ne sama yoon neewu ci bu xonk bi ne sama yoon neewu ci <laughs> ah. fu ñu mujj ñoom ñett ñoom ñëpp la ñu rey mhm. kon képp koo xam ne kilifa diini nga oustaz nga conférencier nga jot na nga génn. bu fekkee bëgg bi ngay wax ne danga ko bëgg alayhi salaatu salaam mu doon dëgg ci yow. Mhm. te yeneen bi dafa wax ne. dëgg gi il faut lenn moo koy firndeel. Mhm. mooy ma gënal la sa ndey. Mhm. gënal la sa baay. gënal la bépp doomu aadama sëriñ dugg na ci. bu fekkee Moustapha moom. nee na ban tarixa la bokk gëmu ko. waxul dëgg. waaw ndax fa mu bokk kooku yonent bi la jox boppam. waaw te kooku fa ne yonent bi nee na tànk <laughs> kooku man gënaluma ko waa jooju. waaw mooy ku mu mën a doon. laa yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayya min walidihi wa waladihi wa naasi ajmain ki la gënal sa ndey gënal la sa baay gënal la bépp mbindeef sëriñ mi ngi ca mhm. oustaz ma fa président ma nga fa ñoo ñii ñëpp mhm. rasulullahi bu bëggee ñoom ñëpp dañu war a ñàkk am na solo am na solo ñëpp dañu war a ñàkk am na solo ay wa oustaz ngir ñu jeexal léegi nag ban atte ban atte la diine l'islam atte jamono ji Moustapha Diakhaté ci waxam ji mu wax Moustapha Diakhaté dañ koy woo mhm. loo ko su bañee bu fekkoon charia da fi nekk dañuy daqale bopp beeg baat ba bu doon charia li ñuy dund dañ koy woo mu tuub mu bañ su fetteerloo ñu tàqale bopp beeg baat ba aywa mi ngi noonu Oustaz Sane Diallo lan ngay tàggoo ak internet yu GCB mais lii nag defe naa concept buy neex la gaa yi la faaw muy ñëw <laughs> faaw muy ñëw waaw di leen wax rek ne doon dañ yaa nga musul nag mais GCB saa yu la soxlaa da ngay ñëw di leen wax ne ku la seen ma nga fa waaw ku la seen ma nga fa waaw dëgg la waaw kon kay <laughs> def ci la ak sot lépp ci ndab li la di ñaan yàlla tawfiq ak taysir liggéey bi am na solo waaye yéen it kenn du yéen gis nañu jàpp bi ngeen jàpp boobu ba léegi bàyyiwu leen uh-huh. tawfeex ak taysir lañ leen di ñaanal soy bu uh-huh. bëgg nañ ci yow ay cee mi ngi noonu Oustaz Sahid Diallo l'homme de tout terrain Oustaz Sahid Diallo médicament Oustaz Sahid Diallo Médina Oustaz Sahid Diallo macha allah mi ngi noonu moom la ñu àndaloon mbokk yi lii dinañ fexe muy nekk ay concept yoo xam daan ci ànd ak moom parce que bu dee ci wàllu yëpp ni ma leen ko présenté woon da ciy dox bu dee ci wàllu français bi tey bu bu ko neexoon français émission bi yëpp nekk français bu ko neexoon mu nekk arabe bu ko neexoon mu nekk pulaar bu ko neexoon mu nekk olof kon nag macha allah ku war a wax la ci Sénégal Oustaz Saint Diallo la woon kon mbokk yi gërëm nañ leen sant leen gërëm baa Assane Mesere mi nga xam ne ñëw bokk ci liggéey bi ak Bàcc Masamba ak La Linguère ba beneen yoon asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.